doxalin yoo xam ne daal euh, doy na waar en tant que mhm. imam it nekk société en tant que ko observateur euh, ana it mbir moom noo ko gisee waaw xëy na euh, man taxawaay ba ma ci am dama koy jéem a tuddee taxawaayu diggu laa koy tuddee maanaam du ma ko xoolee rek benn côté c'est vrai fu mu nekk nii am na ñuy commencé wax ni rupture amu fi du fi mës a am man ànduma ci loolu parce que d'abord day doog a commencé te mandat législature cinq ans la suma ma kon mënuloo premier mois yi rek nga àtte mandature bi yëpp mën na ñaaw ci tàmbali ba mujj rafet mën na rafet ci tàmbali ba mujj ñaaw léegi nag doorante kur peñ saaga ak yooyu loolu moom duguleet du ci bii mandat te tamit Sénégal wéetu ci dañ ko gis ci àddina bi nekkul nag du rafet euh, léegi nag c'est vrai que am na fa yu ñaaw a ñaaw comme niñ ñu koy waxee yàq der saaga xataraayu menace ak yooyu loolu bokkul ci réglement intérieur lu mu prévoir ñu koy defee ci daw penc kon bépp député bu def loolu rek wor nga askan bi noonu laa koy tuddee carrément trahir nga sa mission seconde boo fa def wax fa loolu rek wala def fa loo xam ne fitna la fay andi trahir nga sa mission woo nekk fa mérité woo euh, dara loo xam ne dañ koy jagleel député euh, mu nekk ay privilège entre guillemets euh, ñaareel ba nag mooy que ni malgré que yooyu am na. am na ay avancement pour man ci am na fa ay député yoo xam ne ñu ngi euh, gën a woo exécutif bi gouvernement bi ci ñu leeral li ñuy doxal alalu réew mi projet yi ak euh, euh, réew mi fi mu toll ci ay manquement ci wàllu bu mën a doon dund bi ak et cetera et cetera gis naa fa ay député yoo xam ni ñu ngi koy wax ci teggin ak yat documenté wu posé ci ay question léeg-léeg ku nekk ak sa style bopp euh, mën nga wax yuuxu te fekk sax li nga wax tam jaar na yoon euh, am koo xam ni yàlla daf ko may dafa posé moom luy wax day dal mais gis naa tam côté boobu mhm. te depuis quelque temps loolu amu fa woon parce que comme majorité euh, pro présidentielle moo fa nekkoon bëri na yu bari yoo xam ne vraiment dañ ko doon nëpp nëppal bàyyi mu jàll pour bañ a seen bopp parce que doo gor banqaas bi nga toog kon côté boobu tam na ko nit ñi di xool waaw am na fa question yu am solo yu fa soulever yoo xam ni gis naa ni lu baax a baax la pour man député yi dañu war a mettre en difficulté tout le temps exécutif bi mais de façon correcte waxuñu la nga sos say sos ñëw wax say wax euh, euh, wala di bloqué yoo xam ne it damaa nekk opposition rek voilà voilà parce que loolu soo ko defee da ngay daanu xam dañu doon reproché la majorité mécanique naan waaw euh, par exemple lu mu bëgg rek lañ koy voté ñoom tamit bu ñu lu nar a jàllale nañ ko bloqué alors que man su mu nekk li ma gis mooy. Mhm. président Macky Sall nañ ko bàyyi mu doxal euh, li ko desee ci mandaam loolu laa gis parce que dafa war a doxal li ko dese ci mandaam parce que nekkuñu ci dëkk boo xam ne euh, dañu mën a euh, interdire président mu continuer doxal ay politique publique ba mandaam jeex lu dul mu am exceptionnellement lu xew loo xam ne buñ demee ci loi bi seet nuñ koy lijjante loolu gisuma ni. xew na fi nekk nii ci réew mi. Mhm. Euh, kon loolu laa gis beneen euh, li may jeexale peut-être ci moyen boobu mooy aussi man gis naa ni euh, am na yenn jigéen yu nekk foofu ci assemblée nationale bi yoo xam ne si siggiluñu jigéen waaw parce que ñun ñu jigéen ñi dem assemblée national dégg nga mais aussi itam gis duma généraliser am fay jigéen yu am niveau yoo xam ne seen wax tegu na ci yoon et cetera ba pare li may regretter souvent hors sujet xoolal par exemple ñuy wax affaire budget ministère dama jël exemple rek ministère éducation nga ñëw fa naan maa fi dàq fecc xamu leen ma sam papa mooy diw ah, yow mës naa toog sa salon nga jox ma ataaye saful suukar budget la ñuy discuter donc hors sujet yooyu mhm. euh, bëgg a def pencu assemblée nationale taasukaay ak dàgg sante rajaxu oh, da nga gis sax député bu ñëw ne maay nangam nangam wane yëfu jigéen et cetera kooku moom c'est la féminité négative comme am na masculinité positive j'appelle ça la féminité négative c'est une expression de féminité négative ko defee ma jox matière féministe yi nga ñu ne waaw dañu contre jigéen <laughs> waaw parce que féministe moom kenn warul wax dara euh, lu négatif ci jigéen mais war nañ ko mën a wax ci góor ñi du ma leen mës a nangul lool mm. kon am na fa jigéen yoo xam ñëpp xam ne ñii amuñ seen place fii maanaam xëy na fu ñuy sabaree lañ am place wala fu ñuy taasoo ak dàgg sante mais pas fu ñuy argumenter lire document de politique publique euh, am loo ci comprendre poser ay questions joxe aussi ay euh, am na fa jigéen ñoo xam ne wax dëgg yàlla lajj nañ complètement ci euh, côté boobu mais nag photo parti politique yi la parce que parti politique ñoo fa indi façon nit yooyu parce que dañ leen a soxla pour affaire yu mel noonu kon tam loolu yëpp lu ñu war a mhm. yaa nga doon wax léegi ci mbirum euh, jigéen ñi euh, am na ci jigéen boo xam ne am na fay jafe-jafe ak ay mbokk député am ka boobu peut être ka spécial la ami ami Ndiaye ñibi waaw ba sax ñu hospitalisé ko ci ana mbir moom yow noo ko gisee woon bi ma waaw tam loolu tam rëccu naa ko lool lu ñaaw la Euh, muy góor ak góor muy góor ak jigéen foofu tam daanuma ci piège bi ko li mu nekk jigéen moo tax euh, loolu xew euh, ay jigéen ak jigéen dañu fiy poñante di saagante ay góor ak góor dañ koy def góor ak jigéen dana ko def et cetera kon loolu du ma daanu ci boobu piège maintenant ba ma gisee tamit ne soxna si ci boppam sax mi ngi ëmb ma ne ci politique moo métti xoola rek koo xam ne yaa ngi toll foofu ci ëmb yaakaar na fitna doo ci bëgg dara Euh, ba yooyu di ci dal kon kooku comme dafa ëmb déjà je pense que waroon na gérer boppam déjà santé euh, ba lii bañ ko di fekk ñu naan dafa nar a ñàkk ëmbam wala déet mais politique moo metti euh, ak buñ la joxee moo door foog nga attaqué mais gis naa tamit ñàkk teggin ci waxu ndaw si parce que man gis naa ni liñ doon discuter foofu yoonu Moustapha Sy ay rawaan yu mu am ak nangam ak nangam xaw ma lan bokkuloon ci sujet kon soo waxee loolu da ngay provoqué ñi nga xam ni yemul rek ci ñiy politique ci tour pur parce que pur parti politique la. Mhm. mais ñi nga xam ni tam dañoo jàppee Moustapha yi comme ci kawam la ñuy wax kilifa diine kilifa boo xam ne ñoom dañoo amante moom kóllëre pour plusieurs raisons ñoom dañuy jàpp ne rek seen sëriñ nga jam te ku am intelligence politique aussi war nga def différence boobu. ok war nga def différence boobu gis naa ni dame bi n'a pas fait cette différence dafa ñëw attaqué euh, personnellement bi wan ko ni sa wax dañ na nangam ak nangam euh, ba wan ko ni ni ñu fonkee suñu président Macky Sall ku ko jam ñun tam noonu la ñuy jamee yéen sëriñ bi ngeen fonk gis nga te Sénégal bëgguñu bëgguñu nga jàpp ne sëriñ si da nga leen di jox même considération que ñuy politique kon femme bi def na foofu ay ay ay yoo xam dañ ko war a souligner mm-hmm. euh, d'ailleurs ki ñu wax ne daf koo pees ak nangam nag yëpp gis naa tam ba mu waxee ba pare dama dégg ndaw si dafa ne je m'en fous maa tey ngeen baal ma wax bi ma ne ah gis nga kon wax dëgg yàlla violence verbale aussi am na ci ndaw si ak provocation ci ci réew moo xam dañoo toll fu nekk nii foo xam ne moom dafa xaw day waar mm-hmm. kon gis naa ne intelligence politique ndaw si ci discours am des na pédagogie ak yar ak teggin mais mais loolu yëpp taxul ñuy cautionné député bu mu mën a doon ngay fajal sa bopp sa mer di utiliser violence euh, physique kon tamit ñaari député itam kenn mun leen layal mm. ci lu mu mën a doon au contraire sax dama naan rawatina sax comme ñoom dañ naan défendre seen sëriñ ak wàccuwaayam moo tax sax xëy na ñu def loolu dama naan sax au contraire bu ñu xoolee Tivaouane ban école la danañ xam ne Tivaouane école lu jàmm la mës a woote ah ak euh, tolérance lu ne xew na fi ci réew mi waa Tivaouane comme ñeneen comme ci cas boobu la ñuy wax intervenir pour jàmm am kon nag man je me dis au contraire boo nekkee député boo xam ni da ngay askanoo euh, kilifa diine buy askanoo Tivaouane euh, yow war nga ànd ak sago ak dal ba nga xam ne muy góor muy jigéen bu ñu waxee sax ki sa sëriñ lu jaaduwul euh, yow nga tontu lu rafet ah attirer attention ndaw si ne ko bul jaxase yu bokkul euh, nangam ak nangam euh, baale ak wax lu rafet loolu moo mooy cosaan ci jàngale diine moom la ñuy fekk ci alquran fekk ko ci sunna fekk ko ci jàngale mag ñi hmm. kon mooy li ma waxaat encore rek fi nekk ni politique tax na fi nekk nii éthique islamique bi ñu ngi koy nappaaje ndax eh, règlement de compte politique ak yu ni mel te loolu nag eh, moo tax képp koo xam ne tey nitu diine nga eh, ba pare bëgg dugg ci politique am nga ci droit de mais war nga waajal sa bopp bu baax ba xam foo ci yem bu dul rek bu dul lool rek njaaxum dana bari hmm. Hmm. am na solo